ana lan moo tàqale dëgg ak ak neen dana ko wan fan la dëgg nekk ak fan la ak neen nekk dana leen xàmmee laajees na yonent bi sallallahu alayhi wa sallama barab yooyu ñu war a ràññee ba xàmmee ba xam fa la dëgg nekk wala nekku fa nuñ koy xamee mu ne mooy foo xam ni fii boo fa demee fekk fa kañ fay fekk boo ne ko sutu rek sam xel dem ci yàlla su waxee ci xam-xam nga dolli ko bu fekkoonte ne xam nga dara soo xamutoon dara da nga fa jëlee loo xam ne doo ko fàtte ba mukk te day am njariñ ba faw waaye nag xam-xamam ba muy wax ca boobee jataay ku fa jóge bu dee ngoon la boo demee doo tala reer bu dee ak suba la bu fekkutoon nga ndékki doo tala ndékki sakkantuma tala añ sam xel danaan lapp ca àllaaxira loolu nag moo mat a jàngat da dégg ñu naan njàngaleem sëriñ bi tee ñu koo defoon njàngulum sëriñ bi njàngulum sëriñ bi ndax sëriñ bi dafa bind ndénkaan lii ma doon jàng léegi woote na ca ña ñëw ñëw mu jox leen lam leen jox ëmbalu leen ko walla mu kornatal leen ko waaye dañ koo doxal ci kanamam ba mu ne nii da laa ko binde woon mu leen man ngeen a dem mu ñaari étape jox leen ko ñu nafar ñu jàng ko ci kanamam ba mu doon lam bind mu ne leen dox leen ñu dox ay fan mu bett leen fekk leen fañ nekk ba xam ña nga ca waaw walla déet dénkaane ba moo nekk nii daf ne aouzu billahi min asheytaan arrajim mi ngi ñaan yàlla mu musal ko ci seytaane ba lii muy wax seytaane bañ caa amu yoon mu ngi ñaan yàlla musal ko ci eh, an am amara bi suu xel moo xam ne lam lay xiir dara jëmu ca kër ñaan yàlla musal ko ci réer gi bànneex di yóbbe nit yàlla ñaan yàlla musal ko ci bewloo gi seytaane di bewloo nit ba mu fàtte yàlla ñaan mu musal ko ci pexe mi seytaane di jaare ci nit ki jaare ko ci àdduna ba dox digganteem ak yàlla wa min suui nafs wa min idlali lhawa wa min gururi ihwai sheytan wa min gururi dunia danne ki bind xaraf yii ku bind daa jàngulu ki bind xaraf yi digal na mbooleem ku koy tuddoo naan moom nga topp lii mu bind fii su ci jotee na ko daal tàmbalee jëfe fasaasa su ko jëfee fa alay fa lahum bi ñu ko jëfee fa lahum ku ko ci jëfee fa lahu fa lahu ku ne xam na ne ak pay la wa amma man amana wa amila salihan fa lahu جزاء الحسنى وين كنك ست خولك بو خولك تكفى فعليه وإن امتثل كأمر كاتب هذه الحروف جميع أطباعه بمراعاة ما كتبه هنا وإن فإن امتثلوا فلهم وإلا فعليهم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها lam ca bind mooy yéen mbooleem ñiy wax ne man mii ngeen toog tudd ca aw turu nit tudd ca wenn sant ku ca bëgg a bokk jëlal ku ca bëgg a génn na génn ku ca dugg te jëfe ko falahu ku ca génn fa alay mook càkk nee na déglu leen lii ma leen di wax waxuma ngeen déglu ko waaye ngeen dégg ko te su ngeen demee ngeen jëfe ko te xam na nag bis bu set bis bu yàlla sàkk yàlla mën a dogal ma ñëw di xool ba xam nu ngeen def ak loola nee na bu leen wuutee mukk ci pas-pas ak ci jëf li chariatul mutahara tëral bu leen def lu charia def lu wut mukk bu leen ko teg fu mu ko teg lu wut mukk li tax ñu tudde ko ashariatul mutahara doon nañ fàttalante ci ay bis yu néew lu wutale tahaara ak nadaafa tahaara moom la lislaam tuddee ak catam ci tax lislaam mooy tahaara tahaara moom moo yanu lépp jaamu yàlla gu di def ki tahaar lay tege dara baax sëñ bi bi muy jàngale ci lenn ci ay téeréem mat na ñaar jëm ñett atteeb julli daf na julli yi juróom farata la farata mooy loo xam ne kenn mënu ko defaaleel kenn kenn donte am nay xaaj waaye farata ji ma tax di wax kenn mu ko defal kenn nit mën naa baax lool laa biir lool julli tusubaar jot mu julli wàllam bëgg a liqaamaat ñu ne ko looy def nii mooy dama julli waay leen ñëpp ñu ne ko déedéet loolu digle wuñ ko loolu bokkut a sariya bokkut a sëñ bi mu jàngalee atteb julli ba noppi dafa ne laab nag moog julli ñoo bokk benn atte lim féetee kaw mooy ci kawam la julli di jaar دورة جعل لفهم تيم إذ الصلاة لا تتم أبدا إلا بها وجوبها وجوبها قطعا بدا لب لو خمنا بو أمو اللي دو منا صرتي لو لي منو تانيك من بولين ووتك سريعة المتاخرة مك سنجن نوب سنجن تساخي بسخ تبسخ تبسخ لو ينتي منا بولة حقيقة نجن بولة أنا شريعة المطهرة الحقيقة نين كوي دقي تشين وخين موي كنا كود كتشي ريو مرك تأمل خل خمنا غوب غوب موي فور فور داي أم تويل بيريا بتوي فك برنان يويخ أجي أم ينن ملوكان شين نو بيرك داري دف لكوي خبر داري كوي غوب فتكو suñ ko fetee ba mu set ñu lengali ko door koo weer loolu mooy sharia loolu mooy yoon wa loolu moom kenn kuy fóot ku koy teg ku nar a fóot ku ko ku ko mën a teg amul waaye nag boowee am na ci yoo xam ne bu ko neexee mu fudd ko paase ko am na ci yoo xam ne bu ko neexee du ko fudd waaye mënut a ñàkk jaar ci tooyal gu fete ak yalandi daal di fo daal di weer mooy ñaar yoon su ngeen tegee seen tànk ci sharia fës yéen yéenee wuuteeg moom lu tor ne tarfata ayin tarfata ayin mooy xef ak xeppi su ngeen ko dundee ba dund ko ba dund ko lu ngeen ca mën a boole ci xaqiqa ngeen tàmbali koo jëfe ndax dana yomb ci yéen balaa kenn pentiir day tabax ba noppi baraax wala li ñuy def yi balaa kenn karole day fekk mu tabax ba noppi dan shari'atu mutahhar nak boko beugé xam moy al iman bi tawhid gëm yàlla ju wor wétal yàlla daf ka moy kenn ci lépp dal dikoy feñalé al islam bil furu' al fiqhiyya do set nam la jubo ak nam la sobé kimi muy waxal daal moo ko xam ne bi tawhid am islaam bil furuu'il fiqhiyya di jàpp bu fekkee jàpp am lu ko war a jiitu muy sangaay mu sangu bu njàpp ma baaxee ci biir sangaay la mu soog a taxawal julli ba ponk yépp man bu waree aji aji su waree bu war a ko ñëwee mu woor ko su liggéeyee ba am lu génne asaka mu génne ko ak niyatul xayr diggante yooyu lu baax lu ne lu mu ca def mu def ko ca mais loolu mooy asharatul mutahara bi ma tayassara lakum min alxaqiqati almunawara nag mooy weesu na étape bee di su ko weesu waaye miin na ko ba ay cëram yëpp tàmm ko ab xolam nangu koo def ba ñëpp xam ko ci moom xam ne kii moom waxtu julli wu nekk bala moo am jàmm daa julli ji ba dikk du tal ay wax su dee yor bitig sax day tëj bitig ba métier moom moo la yor da koy tëj bàyyi dem julli si ba dikk su ko tàmmee ba tàmm ko nag day mujj na jàkk diggante ak boroomam lu muy yëkkati yàllaay tax lu muy tëj lu muy teg yàllaay tax moo tax mu ne imtisaal topp ndigal boobu mu wax mooy fi'lul waajibaat junj naa ko léegi mooy farata yi matal ku sëkk am na beneen borom xam-xam bu bind di wax atte yi juróomi atte yi nga xam ne ci lislaam sukkandiku di lu ne mu dugal ko ci am néeg ba mu agsee ci waajib daf ne fa waajibun laa yaqbalu nafya bi xaal wa ma aba thubuta aqlanil maxaal nee imtisal nak moy mooy def waajibaat yëpp farata yep nga diko taxay ci lu wer tek ci sunna ya muy mën bat bu deme ba def yoy ba janam wacc lu ko ci wuutoon ba xam jak nam mu yewenal ko ci mu yi bu de koor ga leg leg mu tok ba yag rek mu um wor ay fan sule azaka amugulum gene azaka waye leg leg mu ne texeet ci allam jox ñi nga xam ne soxla nañ ko su dee aji makka te amagul alal aji makka muy defee léegi mu umra ji yu baax yi bari lu ci ne am na naafilaam yu dul jeex waaye nag nee na kii topp ndigal daa am luñ ko tere dañ koo tere digal ko liñ koy tere mooy moom mii nga xam ne moom la topp tamit wax ak moom lim ko tere mooy jëpp jëf joo xam yàlla da koo tere muy lu ndaw wala muy lu rëy lu feeñ ak lu nëbb saa bu demee ba di ko bëgg a laaj na fàttali ko ba xam mu ngi bokk ci ñi ànd ak sëñ bi waaw wala déet ak ko topp waaw wala déet su dee su dul noona mu ne teg teggit tànkam fa saasa ne lii kat sëñ bi daf ma ko tere woon ca bataaxalam boobee xaraam na bu ko xasee ba xam mu fas yéene duutu ko jege duutu jege foofu mukk amna lu yalla téré ci alxuraan néewut bu len ko def way dañé bu len ko jege daa ñak wuré wërale ko né bu len def bu len djégé ñak bi kon la ci biir taxum ni wax sib nañ ko ciala da ngay dékk ko dañ ko sib rek dañ ko sib rek sib moy lan moy ko salon tay ji ciub gu rafet ñepp di yem ñu toqal ca as eau de javel mu xool ko ne amul solo léegi tey mu tàmbali caa feeñ ku nangu wut a génn dañ koo siib dong bu yàggee mu dugg ci lu xaraam ndax ñoo bokk kër xaraam mooy borom këru siib nañ ko donte doguwuñ ca tere ga niñ niñ dogoo ci tere lu xaraam ba di ko teg am ak pay bu metti walla mu jël as acide wis ca rek ne amul solo kee moom day soppi couleur waaye kii day bënn yére yi moom te bu dee ko xay dëgg dëgg dëgg dëgg moom yére yu bënn moom du ko nangoo solo da koy summi sànn wala mu wala mu may ko soxla kam koy may su su amee xel ne moom du ko soxla waaye lam ko tëjee nag moom mat a dawal yaram yépp bii sax ñu ne ko jàkk net bu leen wuteeg charia bu ngeen demee ba ca biir ba tàmm ko ba tàmm ko ngeen teg seen tànk nag ci xaqiqa lu ci nekk ci yooyu am na ab yax ci alquran iman bi tawxid moo ya ayuha alladina amanu aminu billahi wa rasulihi ba aaya ba àgg waaye al islam it yaa ayuha alladina amanu duxulu fi silmi kaafatan silmi foofu lislaam la fay tekki lépp ngay ويعني ويعني حقيقة موي الإحسان وأحسنوا لكو جنا فيري لا تسين بدي بند موي حديث عمر بابو سيو لول با جيم مو نيوي جو خامني مينو نيوكو تي غوخ بي دك بي كون داي ملني فسر واي غيسون تي mel mandarga mi waree ni kii daa tukki lu yàgg mbubbam faggut rasut mu mu mu sañ lool ñëw ba fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi mu toog moom moomee mu fat bëti woomam yooyu teg ko ba mu ci yonent bi sallallahu alayhi ay yoxoom teg ko ci kaw penku bi bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dama ba nga wax ma lan mooy imaan dëgg dëgg dëgg dëgg bi sallallahu alayhi ne ko al imaanu الايمان هو ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره وإيمان بنوك الاسلام يا بنوك الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت منكو لن موي احسانك منكو ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك moy li serigne bi bind fi neena mbollem ko xamne dang ko top beug mu limale la euleuk euleuk boku nuyo mu xam la tegal sa tànk ci sharia bu làb bi boko ko ba tam ko dem tegat sa benen tànk ba ci haqiqa ta benen tegg ñom ñaar fa inna amamakum ma daakum ila sam'i ma naadaytukum ilayhi wa qabulihi na ngeen xam na nag des na tuuti ci kanam am na ko jóge na fa mu jóge jëm si ci yéen te du te du teggi yéen ñi lu ngeen gën a dox jëm ca moom bala yàgg ngeen daje mooy lan dee barsax bis penc su boobaa ñu joxe nit ki fa muy dugg yàlla doon fa nu gënal waaye loolu fii lañ koy fàggoo moo tax mu wax fii ne yow mii ma topp buñ la laajee noo tudd nga wax ko ñu ne loo doon lu dul awturu kese kese nga ne murid la nañ déglu sëñ bi wax yii mu wax ni daa mel daa metti teg sa tànk ci sharia doo wuuteeg moom ci dara su yàggee nga teg ko ci xaqiqa doo wuuteeg moom dara di jaamu yàlla mel ni yaa ngi jàkkaarloog moom mel ni sëñ bi woowoon la tey ne la kees gi laa bëgg nga leeñ ko lay ko maasale ba noppi toog fa li ngay jëkk def mooy fexe ba pënd du jëm ci moom pënd du jëm ci moom nga dem nag ba yemale ko moom mi la ko sant ma nga fa toog ak toogu fa mais loolu mooy échant mu mel ni day metti nag mu ne waaw dana metti de waaye nag bakkan moy dox diggante nit ak loola aduna seytaane ak banéx da ngay fexe ba daan sa bakkan ak mom ba jàggi ko ruur nargan ko adim jihadan nafsi ya muridu fa innahu sabilu ma turid man lam yakun li nafsihi mujahida fa innahu la yahtawi fawaida neena saxal dàkk boo bëggee jëfe ndigal li ci daanan teg sa bakkan bu mu la digal mukk nga def bu mu la tere mukk nga bàyyi ku jéemuta daanan teg bakkanam kat ba jàggi ko ruur nargan ko ci suuf xëlam ko koloj ko du jariñoo fii du jariñu fële wa kullu ma lillahi jalla turika fa innahu naxju xara min sudika lépp lépp lu yàlla tere nga bàyyi ko te yàlla tex te yàlla tax nee na su boobaa wan nga gannaaw mbedd mu mag ma jëm ci lu xaraam waaye su fekkee li yàlla tere yaa ngi wet wetal ca wet ga di wut aw lay bu yàggee nga ne dakaj ci mbeddum moo xam ne bu ñu la nekk ko moom neel xaraama ko moom te bu yàggee nga dugg këram وهي وكل ما لوجهه قد أخذ فإنه كواجب قد يحتضى كون بو سيرن بي اندك موم يومبوت نيخوتيت نيخوت دا متي خول لين اك دوندم بول لاكو نياتا ات لا تي دوند لي ني دوند koo xam ne ba mu jógee ca daara jam ku jógee daara ja diggante ba mu fi toog ci dëkk bi ñu war ko yóbbuwaat jeneen daara mu war a jàngi xam-xam wala mu war a jàng leneen caaca mbul lay liggéey ci lay xame mbedd yi ci lay xame gaa yi jutu saa jaar déedéet ba mu ca waree jaar la dugg ci coono yi mu dugg ndax da doon bañ la gaa yi doon bëgg di bëgg loolu la gaa doon bañ kon boog ànd ak moom yombut de neexut moo tax mu ne bu leen àdduna wor mukk te seytaane day wor nit ci àdduna wan ko loo xam ne nam ko misaale woon ci jigéen ju màggat sol lu rafet nit ki xëy topp ko saa bu ko jegee mu yokkaat ay jéegoom bu dawee mu daw bu bu waaxoo mu waaxu bu taxawee mu taxaw bajant bi so mu muri la muuroo woon màggat bu xubudu lam ndaw ci subaak léegi fu mu fu mu fu mu mujj fer yi dana ko jaare ci bànneex dana ko jaare ci alal dana ko jaare fu baree baree bari foo xam ne nit ki day dem ba fàtte boromam fàtte digganteem ak boromam moo tax xadis boobu ma doon jàng léegi ci suñ jamono mooy xadaraat yi ñu def li ñu tuddee xadara نص الحديث معي يا رسول الله أي جلسائنا خير قال من ذكركم الله رؤيته وزاد في علمكم منطقه وذكركم بالآخرة علمه كن بوك بيب حضر بوخا يا بوخا دمي سخل دم تي الله لن فاي واخ دو تي جيري دارا لومي كافاك ري دوفا الله لنا ولكم ولسائر المسلمين آمين